ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy seen noonu ahousubillah bisimillah wasalaatu wasalaamu <clears throat> muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa man tala mu ne faslun lépp teqale la fi tey mu ci tiim nee na dog boobu dafay jàngale wàllum tiim mu ne musaafirun aji tukki saara koog dox na bi xayri maasiyatin ci lu may laxoo ñeen na ko tayammumun tiim zamaana tamshiya ca jamonoy dox ga wa misluhu am kemam la almaridu aji tawat ju góor wal marida ak aji tawat ju jigéen di kulli naafilatin ñeel bépp naafila aw faridatin wala farata nee na képp koo xam ne dafay tukki wala muy ku tawat moo ko sañ def te mën na ko def ki nga xam ne day tukki jamono yam nekkee ca tukki ba te tukki ba nekk tukki bi so bu sori nga xam ne lu gàtt-gàtt mën na 72 douze kilomètres kooku julli farata sañ naa tiim julli naafila ki nga xam ne dafa tawat moo xam góor la moo xam jigéen la tawat ba mënta jëfandikoo ndox nee na kooku it mën naa farata mën naa tiimal naafila kon kuy tukki ak ku tawat muy góor muy jigéen ñoom sañ nañoo tiimal farata sañ nañoo tiimal nafila ndax ku tawat moom xam nga mën naa sax bañ a nekk kuy tukki mën naa nekk fa mu waaye gannaaw bu mu mënta jëfandikoo ndox mi moo kuy tukki ñooyam rek ñu ni boole benn atte waaw mën ngaa tawat nekk sa kër tawat ja tax mënoo jëfandikoo ndox waaw kon bu kenn du la forcé ci na naan la da ngay jëfandikoo ndox ma ci jàpp wala sax nga farata déedéet dañ naan la demal nga tiimi ne sëñ naa tiimal farata sëñ naa tiimal la والحاضر اجي تيو جنك الصحيح كي اجبر كوك سنياتي مال الفرد نيال فرطة إذا خاف نيم رغل نخرو جا وقتها جنو كوختوا لين حزرين جلن جانت نينا كينا خمنا موم تكي ول موم نيو الحاضر ويفميني تكي ول دار نيكو تكي Eh, ba pare nek ku wir nga xamne kon tawatut kon ñaar ñeemu la waxon ñëpp genn nañ kuy tukki la la waxon ak ku tawat nak mom tukki tukkiwut tawatut koku sañ naa farata kañ bu ne dafa ragal waxtu genn ah, dafa am gant ci amutoon ndox wala yu demee nonu ba waxtu way waja jeex mu leer ko ne ko dal fi mu toll nii moom boo moytuwul du fi am ndox wala sax am na ndox waaye mu ragal ne bu fi nekkee di jëfandikoo ndox mi balaa pare waxtu wa jeex te ngànta taxoon mu yeexe njàpp moomee wala sangu faratama euh, nee na kon kooku sañ naa tiimal farata waaye nga xool nga gis nim la ko xeyit bu baax a baax ndax daf laa waxoon ca ti ca gannaaw ne la tiim moom ku ko def te amul ngant sa tiim boobu yam a xëyaamee yàlla sawara la la koy fay kon ki nga xam ne tukkiwul ba pare dara jutu ko balaa sañ a tiim rek di julli farata day fekk ne ragal na ne bu fi nekkee di jëfandikoom ndox daal waxtu wa day jeex waa ñu ne ko na nga tiim te fekk la tax mu yeexe ko ba nga xam ne bu ragal na ne bu fi nekkee di jëfandikoo ndox mi waxtu wa jeex la tax yeex googee am ca mun na nekkoon ngant bu dee da nga nekkoon ci loola neex rek ba waxtu way waaj a jeex nga ne ah fi mu toll nii mënu ma fee jàpp wala mënu ma fee sangu farata bu boobaa it loola da nga ca am bakkaar li xusrin ngir ngànt saa ji wala li naflin di caagi ne naafila awli li walla ñel ajuma wala janazatin du ceegi nem tàdd lamta taayyan moom ràññikuut fanqilaa na nga xel nee na it du sañ a tiimal naafila moom kooki yi nga xam ne dafa tukki ni ko moom kooki nga xam ne tukki wut tawatut du sañ tiimal ajuma ndax xam nga moom dafa wax ne dafa ragal ne bu fi nekkee di wax di jëfandikoo waxtu wi bu fi nekkee di jëfandikoo ndox mi waxtu wi jeex bu dee ajjuma la dañ naan ko demal nga jëfe jëfandikoo ndox mi bu la ajjuma ci rawee nga dem julli tisbaar bu la ajjuma ci rawee nga dem julli tisbaar waaw waaye ngir dabu ajjuma ja rek ngir imam ba bañ ko raw du tax mu mën a tiim waaw boo ñëwoon fekk imam ba dese benn rakkaayit te jàppoo ko dañ naan la demal jàppi wala nga waroon a sangu farata dañ naan la demal nga sangu ci bu la imaam barawee bu imam ba sëlmalee xam kon ajjuma jaraw na la boo ñëwee nga julli waaw kon euh, ki nga xam ne moom tukkiwul ba pare tëwatul dara jotu ko kooku moom dana sañ tiimal farata rek waaye du sañ a tiimal la du sañ a tiimal it ajjuma ajjuma farata la waaye ajjuma dafa am lu ko remplacé mooy tisbaar du sañ a néew li fekk ne néew ba dafa ràññiku dafa dafa dañoo ragal ne daal euh, bu ko tiimut jullee ko néew ba mën naa soppi ndax dafa yàgg ndax dafa yàgg euh, bu dee ne kenn nekk fa koo xam ne musaafir la ku tukki la nga xam ne farataam mooy tiim ku tawat it nekk ku tawat it nekku fa nga ne farataam mooy ku yore njàpp nekku fa nga xam ne moom mii rek moo fi nekk daal nga xam ne moom dara jotu ko ba pare tukkiwut te néew bi buñ ko tiimut jullee ko moom mën naa mu soppiku kon boo dañ naan ko tiimal nga jullee ko waaw waaye bu dee na loolu amu ci moom kon du ko sañ a tiimal di ko julde mhm, kon dog boobu foofu lay am euh, mu ñëw nag ci faratay tiim